Dieu. Dieu te célèbre. Bismillah, barke borom assalamu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak di leen jaajeufal bu baax baax ci and ngeen di and ak Mouride TV tay nag ñu nekk fi ci euh, Touba daru salam daru salam nak buñ ko waxe xel yepp day dal di dem ci mam Cheikh Anta mbake ñu gën ko xam ci borom daru salam ak Gaawaan ñuy fàttaliku nak euh, magaluk daru salam di bis bi nga xam ni ci la mam Cheikh Anta mbake don ganel Serigne Touba gannaaw tukkeem mu yag bo xam ni defoon na ko Gabon daanaka ñetti at xam ngeen ne fii di Daaru Salaam Serigne Touba Cheikhul Khadim moom la jëkk a sanc ci ab dëkk laataa mu koy jox maam Cheikh Anta di dem sanc Touba waaye bi mu bàyyee ko fii itam dem Touba jóge Touba dem ci tukki bi bi mu itam fii la jëkk a wàcc maam Cheikh Anta Mbacke ganale ko ngan googu wax nañ ne nit sax maam Cheikh Anta demoon na ba koy tëral ngir bëgg koo rendi ngir ganale ko Serigne Touba Cheikhul Khadim loolu nag moo tax at mu jot bu bis bi dikkatee mboolem jullit yi ak taalibe yi bàyyi ko fu nekk ci réew mi ak bitim réew di fàttaliku ak a màggal bis bu tedd boobu di fàttali rek ne maam Cheikh Anta Mbacke moom ak Serigne Touba Cheikhul Khadim ñoo bokkoon wenn waajur wu góor di maam Mor Anta Sali Mbacke waaye bu ñu xoolaatee seen ak mbokk itam dañoo bokkaat ci li nga xam ne nii moo deret kon yaakaar naa ne bisub màggaluk Daaru Salaam mu ngi nii mbokki taalibe yi bàyyi ko fa jamono yi nag ñu taxaw ci buntu xabru maam Cheikh Anta Mbacke ñu koy ziar di ñaan suñu borom yokk ay leeram daas na ci barkeem waaye màggal gi nag xam ngeen ne euh, jamono yi ki nga xam ne ni moo nekk xalifa maam Cheikh Anta di Serigne Jiili jamono yi ñu ngi koy ziar ak njabootug mam Cheikh Anta gi nga xamne ne ñoo fi dess mo xam muy seuti wala ñeneen lool nak mo tax inshallah allah TV ni la ko fas ànd ak yéen fi ci magal daru salam jërë ngeen jëf. dama leen di delu ziyara ni leen ci turu al islam salam alaykum wa rahmatullah julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam sallam wax ni maam Cheikh Anta euh borom bir la yule euh bu mo sëstee fi ci gawan lu ñëw fii. لن يوفي يلا الشيخ الخليل لك مداخل مداخل مداخل سرين طباب مدفعي غيب بي باركي أتمسول يوفي في لجيتو في دار السلام في رقم من يوخم الشيخ أنت لمو لمو كوجو خي فين يجي مم تيجي ناو سرين فين يجي دومي أمن مقام بريلة ولا يخمني همونه که ما همونه بمو بمو بوی که بمو بمو دمی گنی آدونه همونه بن همونه بن طاویو طاویو با بگنی مام شیخ انت فکی کم کوی دخ درسی کوی چی مم در ول یمن مقام شهدا ایکار شهدا بدر ایک اه، اكوحد يلا يخلكو لبری اسمكو اه، نطلي نايندو فنان لكن وجههم شي قتل مغني ولي كامل ها جل شيرين طوبال باري رضي الله عنه وارضاه مني وفي شيرين طوبال مملكة سيدة مني هذا بضعة مني كي ضقت لي جمم ولا يبي مؤم جوخناكم كمان لباري كي مؤم شيرين طوبال مني كمان تنكنا كمان رغم دم واحد اجري في عرق واحد ما درت شنو درت بنلو من اك ماما سي ماما لي شيء مم بيو شي كي نيو شي ما قلبي كي مو يسمى نيار نياري في نيار يوم ما يجي شي كي كرام الشيخ ماما تسلي تي اتبلي ما يجي شي تي اتبلي فكي مي كتي ميجي كتي يعني لو خيو أطبلي لو كوغنا باريتي خيو خيو سناكوتي أطبي قنا لو لن يعني الله سبحانه وتعالى يجوخي بارك سرين طوبا أكبرك الشيخ محمد السر أكبرك الشيخ إبرفان رضي الله أه، لولو لين يسات كوي خامني دفا بوغي جبتيون الإسلام نجبتيون الشيخ الخديم جارتيون ما ndax maam Anta Sali ci yoonu Sëriñ Tuubaa lay la nekk radiyallaahu anhu eh, ku bugge lu xew mu bari ci moom xewu àdduna ak alaaxira mu nekk ci yoonu Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu te noonu seede bi jox nañ ko seede Chérif eh, yoo xam ni eh, yàlla tàmbali na ñoom ci tawfiq ngeen am yéen waa TV Mouride ci am tawfiq incha allah rabb ci barke borom Touba. magal gi di siyaar si ngir yàlla ak yéen suñu Touba Cheikh Fall ak borom magal gi ñuy wax euh, sëñ si Anta ndax bisu mag bi fa jógee ci tukki mu sell ba lépp fii la ko indi fii ko jaar wàcce ko fii fekk fi ju baax bu sell bu teel bi ñax si si Anta mu gën a nekk gën a nekk boo xam ne sant bu baax a baax a baax ñun ñëpp si lañ bokk tey di ko siyaare di si barkeelu te ñun ñëpp mën nañ see nekk bu faw di ko barkeelu. ndax liggéey bi liggéey si moom moom ci kanam rek du ajal mukk ñu siyaare ba ko joxee nag si si si xanta itam wax dëgg mooy itam taxawu ko da koy yokk wàññiwu ko te ko ku na nga yokk wax dëgg yàlla waaye de moom yox de ñun moom lañ si mën a jàngatee bési gërëy ak liggéey ak taalibe ak ndax wax dëgg fu ñu sëñ ba wàcc liggéey bu ñu wàcc liggéeyam joxe ko mu doon de si xanta ah loolu moom xam nga ne moom liggéey bu rëy la tey it barke lu wér a wér te mën see dund liggéey fooy dem nag ndax xasaay bi ñu jàngee fii ak alxuraan yi ak di durus ak sikarulaah yi ak borom baax yi ñëw yëpp yëpp di ñaan di ñaan suñu nangu yàlla yàlla na ko nangu te ñu fekk état bâtiment Cheikh Fall ñëw nañu fi tey euh, def une forte délégation tey fekk si suñu waajur suñu kilifa soxna Astou Mbacké mais aussi du suñu collègue député tey jii ñu ñëw fi teewal fi suñu président groupe parlementaire ma Madické Niang ndax yàlla dafa dogal mu nekk bi bitim réew euh, mu yabal ñu ñu ñëw teewal ko fi ci président groupe parlementaire bi waaye aussi ñu ñëw fii teewal fi it PDS teewal fi président Abdoulaye Wade kon tey ñetti tànk lañ fi taxawee muy tànku délégation bi ñu ci nekk ñëpp ay mbokk lañu ndax tey suñu bàjjan la ñu fekk si waaye tamit euh, suñu collègue député la. waaye yi tamit ñoo bokk yi tamit parti démocratique sénégalais mu ci jàmbaar joo xam ne li mu ciy liggéey liggéey bu rëy la boo xamante ne askan bi yëpp teg nañ ci seen bët la muy liggéey ci assemblée yi tamit askan bi yëpp teg nañ ci seen bët moo tax tey jii bi ñu fi ñëwee tey am nañu mbégte bu rëy rëy ndax euh, mbégte bi mënta weesu tey ñëw fekk soxna Astou tey fii nii ci euh, taaxu maam Cheikh Anta mu nekk député à l' assemblée nationale nekk sëtu Serigne Touba mais aussi teewal fii parti démocratique Sénégal kon cër mënta gën a rëy loolu tey cër bu ñu am tey ci biir dëkk bi tey am ko tey ci biir kër gi tey kon tey euh, maître Madické moo ñu yebaloon ñu ñëw indil ko siyaaram indil ko indil aussi siyaara bu président Abdoulaye Wade ak waa parti démocratique Sénégal yëpp di leen xamal ne daal président Abdoulaye Wade amoon na yéene moom ci boppam teewal boppam ndax kër gi tey lu mu am rek ci kër gi la ko amee ndax umpaliwu leen duggam ci yoonu murit mu ngi jaar ci sëriñ Modou Mamoun Mbacke ci ci kër gi la jógee woon sëñ Modou Mamoun jàpp ci loxoom yóbbu ko ba ci sëñ Fallou mu jébbul bisu keroog la nekk ab murit di liggéeyal sëriñ Touba ndax ñoom amuñu lu may maam Cheikh Anta ndax maam seexanta moom boo ko tuddee rek tudd nga yoonu murit ndax ñëpp xam nañu ne ngan gi nga xam sëñ Touba amaloon na ko fii ngan googu bokk na ci événement yi nga xam ne boo gën rëy ci yoonu murit ndax bi mu jógee ci géej gi fii la njëkk ñëw kon bis bobu képp ko xamantene ne dégg nga ko rek ak fo mëna nek lepp lo loo war nga ko bayyi ñëw teew ci bis bi ndax bis bi mëna wax ne moy départu yoonu murit ndax bi sëñ bi ñëw fi la njëkkee kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di daru salaam moy kaddu soxna si siyaare mo dem soxna yi ci nek ben bis ëppul euh ndax bis bi nga xam fi la sëriñ bu wajjo lal bay bi ci biir sëñ maam si Anta def fi nganam bu rëy gën lu ne mu terale ko famille bi nga xam ne waxoon na leen ni bu rey nit daganoon tey dinaa ko def famille boobu léegi leen fi jógee lu ne indi nañ ko fi kon benn bis ëppul bi soxna saa ngi leen di sant di leen ñaanal tey ñaan yu yàgg ko fekk ñu yàgg nekk ci ginnaaw di ko ànd di ko وبالهدى تدري حقا بتالي مع إرادتي على تكسرني ولي يعين كل تايب

sí, sí,